Yamaha ñu ngi lay nuyu di jox sa way nga nuyu tek mbokk internet yi nga xamni ñu ngi lay setan di la xel waaw hawazani llahu shaytan wa hadali manafi al awtan hafizani asmani najani halamani man bil huda jere jërëjëfe borom touba jërëjëfe serigne touba jërëjëfe cheikh ahmadou bamba khadim nga la ma cheikh ahmadou karam mbake noore ni jaaraama borom daru shikori waaw ma ngi nuyu sama wasila bax serigne modou mbake dimna borom daru noore ni waaw diko ñaanal mu yag fi lol ta and ak wér waaw di sant sëriñ ousmane mbake waaw waaw ibnu borom daaru moom it ma koy ñaanal mu yàgg fi ànd ak wér waaw di ziar sëñ Moutala moom sëñ Mahas Mbacke xam nga sëñ Abdou Mbacke Kara xam nga sëñ naa Aline Mbacke Kara waaw di sant waa Daara Muxti yëpp waa Sikori sama waa dëkk maa ngi nuyu di nuyu yaa mami Ndiaye sama yaay yaa mami Ndiaye bu baax a baax yaayu ndongo daara yi waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ziar bu wér a wér a wér a wér waaw ba nuyu waa Grand Dakar ñaari tali benn tali xam nga Fass Colobane Medina xam nga waa Kër Ndiaye loo xam nga nuyu naa ñëpp. waaw waaw bi nuyu naa ñëpp. nga nuyu ñëpp war a jëm si combat war a bëri Bébélorant ah. waaye bala ñoo dugg ci loolu dinañ la laaj Diamakha 313 kañ nga dugg si lamb ak ñaata combat nga am. waaw man nag lamb yàgg naa si ndax bi may nekk tout tànk daanaka bi may am 12 ans. maa ngi bëre maa ngi si mbapat yi xam nga koñ yi amul koñ moo bërewul Grand Dakar fii koñ boo xalaat rek ya bëri li may wax xam nga si dara waaw Grand Dakar amul koñ moo bërewul kon yàgg naa si lool lool lool lool mais 2024 bi laa bëre sama premier combat mhm. yàlla may ma ndam xam nga amaat naa deuxième combat di ñaanaat yàlla may ñu ndam kan nga bëreel sa premier combat euh, Zaraba ñu koy wax Lambalok mhm. Lambalok numéro 2 waaw moom laa bëree sama premier combat waaw nga war bi nga naa ko nii rek biñu dajee CNG waaw mais xaw ma ma sax nag waaw waaw lijjanti wu moo tax lijjanti woo kon est-ce que dégg nga xale bi lu mu la yónnee. man du ma lijjanti adversaire waaw du ma lijjanti adversaire te man Karafal laa tudd sama tur laa koy jox waaw Karafal man kenn mënu maa jàpp waaw sama turandoo moo bëri moo ëpp jinne ñëpp waaw man la Kara Fall xam nga di di sant turandoo yi xam nga turandoo Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni yëpp waaw dañoo bokk benn group xam nga Kara bu sëñ Abdou Khoudoss moo ñu moo ñu ñëpp waaw di sant turandoo yëpp waaw leen sant bu baax a baax a baax a baax. Mhm. ah Kara laa tudd. Mhm. waaw mu jàmmaloo. waaw Kara Fall nga tudd nga war a bëreeg Laurent bis boo xam ne nii ndaw moo ko tëgg muy Petit Production mhm. nga war see bëreeg nga xam ne moom mooy bébé Laurent waaye ko xam Yamaha xam ko. ci mobilisation wa bala ñoo jëm si adversaire bi li nga nar ci moom lépp lan ngay ndax te démb gis nañ ni ko terrain Jànkalaar def nga ko noo xam ne ni tey jii ni macha allah ku ñëw dina xam ne mbër mi Grand Dakar ñaari tali topp nañ si ginnaaw hmm. waaw dañuy waajal rek ñu ngi waajal gars yi ñu ngi waajal bu baax a baax boo leen gisee xam ni ñoom fu mu toll nii pare nañ waaw bés ba la ñuy xaar rek waaw petit li ma ko waxoon rek loolu laa koy waxaat mooy dana ñun ku ñu tëgal ngay kontaan si ñun waaw loolu la yàlla def si ñun waaw ñu woo ñëpp nag ndax bëgg nañu mobiliser ndax suñuy naataango la ñuy bëreel waaw te bëgguñu ñu ëppalee ñu fa dara waaw kon ñu ngi woo ñëpp Grand Dakar ñaari tali benn tali xam nga ku lim day jum jàngalaar diisoo kuréel gi zone A zone B xam nga woo nañ ñëpp si làmb ji waaw mobilisation bu am solo nañ ko def Ibou Afia muy bëre grand combat bi bu xefee xoolal dañ koy dañ koy dañ koy waaw dañ koy doublé lu bëree bëri bëri waaw dañ koy lab bu xefee mais sa doomu ndey zumb jóge naa fa léegi-léegi mun a jëlagum na cinq bloc te peut-être instant dafa nar a am problème nee na yéen ñaar da ngeen a duy làmb ji moo tax ma ne na lool moom bàyyi Fall la xam nga waaw def na lépp lu ko war xam nga ñu ñaan rek yàlla may ñu ndam six points moom moom lañ bëgg waaw buñ ko amul rek bëgguñu six points lañ bëgg yu teg waaw yu wàññiwul benn waaw six points incha allah tamit yaa yore caabi bi ubbi comme bii passé rek maa ko ubbi woon ñëw jox Ibou Afia moom maa koy tibal suuf jox ko allah mhm. waaw mu daan ñu ànd ñibbi waaw incha allah nga wax lu am solo sa diggante ki nga xam ne ni moom mooy Zumbu. mais lii lu mu lay def. nga ñu war a def émission nga gis koñ bi fees dell. mu mel ni comme si tey nga war a bëri ji maire xale góor jigéen mag ndaw ñëpp génn di topp sa ginnaaw. waaw loolu dañ ciy sant yàlla rek. waaw waaye dañuy yokk jom bu baax a baax a baax a baax waaw man xale yu ndaw yi rek laay topp. waaw booy ndaw a ndaw yi waaw man ñoom laa am ñoom laay topp. waaw saa yu ma génnee comme li nga wax rek dañ may topp yamaxaa yamaxaa sama yaram day daw waaw te defu leen lenn loo xam ne si nii amul ku ma siy jëndal tàngal waaw defalu ma leen dara waaw mais bëgg moo deme noonu rek waaye maa leen raw fuuf mhm. waaw li mën a fayee nag xam naa ko waaw mooy bu bés baa ma bëggal leen waaw waa ji newoon naa la top 5 laa ba léegi ah. jóguma si waaw jël bu rëy laa koy daan mais man li ma jaaxal mooy démb damaa gis booy asikoy di la di la wayal lu doy waar yaa ma xaa dina ko rey doo ko daan rek bañ kaa rey Ah, non loolu na waar de. non ma ko rey loolu waxin la rek. waaw ah. gars yi gars yi moom xam ma rek gars yi moom ay mbégte lañ waaw mais Asiko waa Asiko Penaro. Hmm. maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax. waaw ndax sama premier combat ba nii waaw ba may mbapat ba tey ñu ngi may gunge. Hmm. waaw Penaro Asiko te fikki dërëm masuñ koo jël si man masuma leen jox fikki dërëm. Hmm. tey jii ku leen woo di leen wax programme da leen di fay. waaw mosuñ maa laaj cent franc au contraire booy dañuy ket génne asiko yi ket mhm. ñoo ne ma mbër li lañ dajale xoolal noo si yokkee xaalisu billet yi kon ñoom maa leen di sant bu baax a baax waa penaar asiko ñoom pinto baaba Dieng xam nga waaw gaa yëpp waaw ñëpp ku lim day juum mais Penaado Asiko yëpp bàyyiwuma kenn xam nga maa leen di bu baax a baax a baax aw ma seen fay. Mhm. sa digganteeg bébé Laurent lan nga si nar bëre wala xeex ndaxte gis nañ sa combat bi weesu da ngaa xeex ba génn télé sa digganteeg bébé Laurent xale bi ngay bëral est xam nga ko ndaanaan la de kooku daa toj ma pot de. ndaanaan la ndaanaan la wax nañ ma wax nañ ma jëw moo tax ma bëgg ko daan jël bu rëy waaw bëgg du ma bëggumaa xeex sax si làmb ji nii waaw mais nag bu ko saaxoo rek am ko waaw bu ko saaxoo nii dafay am mais bëgguma xeex ak moom sax si làmb ji dama ko bëgg a jàpp bëri daanaan la de xaw aussi xeex maa ko a doon daanaan baru doon daanaan fuuf billaahi maa ko doon naanaan fuuf waaw yàb bi lekkwul der bi waaw kenn du ko jullee billaahi c'est que matu ma jaaxal mooy xale bu muy bëreel muy bébé Laurent dama kaa dama dama dama kaa gis ci banlieue bi hmm. mu bëree mbapat mu bëree ay combat doy waar baat ak tontu mu war a def son baptême de feu war a bëri premier combat que xam nga loolu ban importance la am ci mbër buy soog a def carrière am dugg si premier si premier combat waaw loolu xam naa ko ndax man sama premier combat moo ci moo si jugee yàggul waaw te xam naa ne ni ma fonkee woon sama combat boobu noonu la koy fonke waaw signature bi passé ñëwul xam nga CNG bi combat bi taxaw laa gëj a gis ba tey. Mm-hmm. waaw waaye nag danaa xam yóbbante bu ma la jox nga joxal ma ko. Mm. waaw waaw dañoo ne only the mountains do not meet. seules les montagnes ne se rencontrent noonu la demee moom yàgg yàgg dañuy daje. waaw bu ñëwee nag xam nga aliéné bi la ñuy fekk doomu yaama mi njaay bi waaw waaw waaw yeah noo la demee only the mountains do not meet yeah sa leen montagne ne se rencontre jamais waaw noonu la demee dañuy daje montagne rek ñoo dul daje montagne mun na taxaw fole benn bi nekk fole ay at mais doomu aadama yi moom tànk suuf jaan suuf xam nga di sant sama tooma vie yamaxaa bu baax a baax a baax mhm. waaw temps yi dafa xaw a jagadi waaye ñu koy ñaanal mu am tan bu baax a baax ba jour combat bi mu mën koo fekkee incha mhm. allah waaw mhm. hmm. mu nekk loo xam ne lu am solo la ku la gis xam tey jii ni mbooloo muy topp sa ginnaaw dafa bare bari lool macha allah te mbër tey li koy dooleel moom mooy jàppale gi Yamaha ñan ngay woo si sa combat ñu mun laa dooleel ngir tey nga mën a def ni nga defoon stade waaw dañuy woo aliéné yëpp avant tout waaw aliéné yi sama kanasu maa leen di woo si combat bi bu baax a baax xam nga di woo waa Grand Dakar xam ñaari tali benn tali Fass gël Tapée xam nga HLM Grand ah, Yamaha Yamaha ñëpp la xam nga waa Kër Ndiaye booy ñu ngi jooy combat bi passé booy dañoo bëggoon ñëw xam nga dañoo jënd ticket xam nga jël oto xam nga fay ay kaar benn benn ba ñëw te loolu du yoon xam nga ñu woo yi tamit ñu jàppale booy yi booy yaa ngi jooy booy dañoo bëgg a ñëw si làmb ji amaguñu bolok amaguñu amaguñu tike. Ah, xam nga Ndiaye Lo ngay woo. ñoom ñëpp ñëpp laay woo man fépp laa ne Grand Dakar ñaari tali man Baye Darou laa maa ngi fépp aw ma frontière waaw loolu nooree ñuy def man Baye Darou laa aw ma frontière. Mm-hmm. di woo Moussa la maire Pape Sow waaw combat bee ba tey ñu ngi woo ba léegi gisuñ ko ñu ngi woo si combat bu baax monsieur le maire bu Sangalkam xam nga a Xuma xam nga ñu ngi woo si combat bu baax di woo waa Grand Dakar monsieur le maire Jean xam nga ñu ngi gis taxawaayam bu baax a baax a baax a baax Badara Gajaga original boy Grand Dakar ñu ngi woo si combat wo woo nañ ko gisaguñ ko mais ñu ngi woo si combat bi bu baax a baax xam nga di woo autorité yëpp ñu jàppale ñu xam nga booy yaa ngi nii booy chaque jour ticket la ñuy laaj waaw booy ticket ku ma ni waaw booy yëpp booy yëppay man booy yu ndaw rek laay topp booy yi yëpp booy ndaw yi kese booy yëpp ay dem esaat waaw booy tigee la ñuy laaj amaguñu tigee amaguñu kaar yu leen yóbbu mm. waaw nañu jàppale xam nga ñu yóbbu combat bi passé li ci bàyyi moo ëpp lañ fa fekk waaw rugi busa tamit ñu ngi koy woo si combat bi xam nga madame Xayta ñu ngi woo ñëpp waaw woo nañ ah, leen si combat bi bu baax a baax sax waaw noonu la demee mhm. ñu ngi leen di woo si combat bi bu baax a baax a baax a baax liste bi la lay génnee xam nga xam nga mbër yi ñoom dañuy am liste boo xam ne nii ah ñoom la ñuy ñoom la ñuy woo pour ñu mun leen jàppale mais mais mais balaa loolu aussi ñu ñëw tuuti si sa relation ak mbëru Grand Dakar yi feneen ndax tey gis nañ da ngay open presse sa frère yeeg mbër yëpp ñëw di la pousser vers la victoire sa diggante ak mbër yi fi nekk ñoom jaxas gi faali hmm. ah cikiri mbër yëpp lan la waaw loolu moom maanaam feex la rek. waaw ndax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw lu ci gëri di wax rek ñun Grand Dakar lañ dëkk deret bi mooy daw waaw kon ñu ñëpp ñoo bokk deret waaw kon mënuñu def dul jàppalante xam nga ku am combat ñëpp ñaanal ko mu am ndam ku xewle ñëpp teewal ko xam nga bu ko defee ñun tey jii dafa am lu ñu bëgg Grand Dakar dafa am lu ñu soxla mhm. waaw dafa am lu ñu soxla te loolu noonu xam nga mi ngi wuyu si mhm. waaw kon na nañu gën a jàppante rek xam nga ñu booloo nekk benn xam nga muy Cikiri njaxas gi sniper bi xam nga mhm. ñëpp daal mbër yëpp mbëru Grand Dakar yëpp ay Ibu Afia xam nga gaa yëpp faali mbergaan xam nga ñëpp waaw ñëpp daal ñëpp zumboog ñëpp daal xam nga waaw ñoom ñëpp nañ jàppante xam nga àndandoo doon benn say. Mm. waaw àndandoo doon benn say xam nga yàlla mooy loolu yàlla pousse ñu dem si kanam. noonu la demee course yeeg si peeg xam nga course mbay fay aboo fiw xam nga coach Mbaye Cere moom day sonn si xam nga day sonn si mbaru Grand Dakar yi mhm. xam nga dañuy teg lu métti xam nga sama mag faali sama papa la sama mag la sama lépp la mhm. ba may nekk tu tàng ba tey moomay ngemb ba nii mhm. waaw ñi ngi koy bu baax a baax ba yow ñu ngi lay sant bu baax a baax baax waaw yow mbër buy laxatu nga champion ngi nii ndaanaa ngi nii toj na fi toj na terrain jangalaar mi nii xam nga di di sant rabu rabu koñ bi tamit waaw fi mooy penaro digg doole waaw ah, rabu koñ bi waaw rabu koñ bi rabu doole mi fi mais doo ko gis waaw rabu koñ bi waaw mi ngi fi waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax. yow Zakar mooy rabu koñ bi doole hmm, xam na ko ah? borom kenn du gis de mbéj yi. Hmm, a. ako soxor. Ah? ako soxor. est-ce du combat combat bi jëlu ma ko combat du combat. bilaa wala baari baari laa soxla. yi yéen ñëpp baari baari laa la soxla baari baari laa soxla combat bi du combat combat bi daan naa ko bu yàgg barki Mouhamadou Rasulullah baari baari su ma daanee si bébé lonaa mi baari baari laa soxla. Eh. maa ko bu mbooloo maa ko daa ko bëre. gën a ñeme xeex. wóor na gars yi ñeme nañ loolu gars yi ñeme nañ loolu. waaw booy da ba daari balaa lay wax de. non gars yi ñemewuñu loolu de. barki Serigne Touba ba ko jàppee lekk rek la dul def. wër na yàlla bu ko jàppee lekk rek la ko dul def. walaay ah? walaay. Badou gars lu yomb la ñuy wër gars lu yomb la ñuy wër rek. waaw gars yi lu yomb la ñu jël yëpp du combat. nañ ñu jël ñu ñu ñoom. waaw gars lu yomb la ñuy wër kii na fexe génn si bébé Laurent mi ah, gars yi wër la nga naan li kooku benn jooy lañ koy jooy rongañ sax du génn da ngay gëm mu jeex dañ koy daan jël papaam Laurent daan ko bu ma daanee si papaam Laurent laa jëm na ko jëlal sama avance comme moom bébé la. baayam laa soxla maa ngi jégalu. waaw papaam Laurent. ñan ngay woo ñan ngay woo ñu tàggatoo ndaxte mbër xam naa ne yaramam commencé na tàng. waaw noonu la demee dañuy woo Papa Jaxate xam nga ni koy woowaat bu baax a baax a baax xam nga jàpp na si xam nga bolok la ñuy jëndal comprendre nga waaw ñu koy sant bu baax a baax a baax waa suufu pont waaw ñoom kalaamu xam nga Kara keroog bu combat bi passé moo ma yóbbu. waaw Kara ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga Penaro Aziko waa Jelmaani xam nga waa Samet xam nga waa Campenal waa Forbe xam nga Alphonse ko Ndiago ma koy ñaanal xam nga waaw suñu borom génne ko si natt bi te ñu baal ko tamit ñu bàyyi ko booy bi deful dara xam nga nañ ko jégal fañaa fañaa tamit xam nga ñu koy ñaanal tamit xam nga waaw suñu borom génne ko ci natt yi mu nekk xam nga waa jeel bi yëpp waa PC e yëpp xam nga ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax waa Pikine suñu yaay yaa soxo ñu koy woo si combat bi xam nga ñoom Bousso xam nga Khady ñoom ñëpp Xarim Ndiaye xam nga ñu koy woo si combat bu baax a baax ñoom Zene Bamba ak ñëpp xam nga waa banlieue 13 ñu ngi leen di woo si combat bi xam nga ñoom Bàccek xam nga gars yëpp mafia bi ñu ngi leen di woo xam nga waaw staff bi yëpp tamit ñu ngi leen di woo fan si club Yamaha féminin jigéen ñi soxna yi waaw ñu ngi leen di woo si combat bi xam nga ku si mel ni ñoom Aminata Lawbe xam nga ñoom faama xam nga ñoom Pourtu xam nga ñoom Maam Njawta xam nga waaw ñëpp daal woo nañ ñëpp soxna yëpp waaw yaay pour ñu ngay jaale suñu yaay xam nga laa di ko jaale waa Penaro Azuko waaw di ko waaw di ko ñaanal suñu borom yërëm ko xaare ko àjjana xam nga waaw di nuyu ñëpp baro ñu ñëpp ñu ngi ñëpp bu baax a baax a baax waaw waa Babylone ñoom ñaambe xam nga pëdi sama mafia bi ñu ngi leen di woo bu baax a baax a baax Xaasim Dieng añaa borom combat bi ñu kay koy xaar si combat bi na ñëw jàpp si bu baax a baax a baax xam booy Medina yi ñu leen di woo ñoom ñëpp xam nga waa kër Fat Sangaré waa kër mère Alayinde ta Kumbis xam nga ta Marème xam nga day sonn si ñun waaw dañuy jox xam nga ñuy ndekki ndekki lu baax xam nga dañuy jox reer yu baax yow ñu lay jox ndekki ak reer bari na de waaw ay mama cere xam nga pendi ta doomu ndeyam xam nga tra ndey coro xam nga ta kole xam nga ñi may jox xewal yi xam nga ñoom ñëpp ku lim juum noonu la demee bala waaw ñu leen di woo ñu ngi leen di woo ñëpp xam nga suñu yaay mère Alaye Ndeye ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool ta ànd ak wér sama maam la maamu Zak mi toog xam nga waa kër Ndeye Fall xam nga taaleen yi waa Tamba Tamba yi xam nga kër Tukuloo yi xam nga waa Zik waa Casamance maa ngi woo si combat bi bu baax a baax waaw tonton tonton tonton Cissé ñu koy woo si combat bi mbëriñ waaw woo nañ la si combat bi nga ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a baax waa Ebene xam nga ma fi yaa 313 technique bi waaw ma fi yaa 300. matu matu ma jaaxal kii kii kii Casamance fu sore lay woo yaa ngi woo waa Abene booy xanaa nga demoon Casamance si làmb ji man maa ngi fépp nee naa la Baye Darou laa ama frontière Baye Darou la xam nga Baye Darou mag baa ngi ne la taxaw yaa ko ba Baye Darou mag baa ngi ne la taxaw ñun ñu ngi fépp eh? waaw waa Abene waa Jululu xam nga waa Kolobori waa Madina Dafe xam nga waa Kañila ñu ngi leen di woo si combat bu baax a baax a baax a baax xam nga vieux vieux ñu koy woo vieux Tamba ñu ngi koy woo si combat bi mafia ma fa am mafia Casamance mafia 313 tik tik waaw mafia bu xoteeku maa leen di woo Giro Zëmbi xam nga ñoom ñëpp jëme yi gaa yëpp maa leen di woo waa Casamance yëpp di leen wax seen doom xam nga moo xew la ñu ngi leen di woo bu baax baax ñu ñaanal ñu bu baax a baax a baax a baax waaw noonu la demee Badou. lan ngay wax sa sa sa adversaire mu ngi leen di loxo loo waaw dama koy wax mu dëgal boppam rek combat bi moom jarul muy yàgg combat xale la xam nga na dëgal boppam ñu ñëw ma jàpp ko yóbbu ko top 5 incha allah ñaari 5 minutes ngeen di bëri de war ci benn une minute du ma ak moom bu dëgalee boppam incha allah une minute waaw une minute bu taxawe une minute duñ ko def bu soobee nooree waaw internet yi jërë ngeen jëf li moo nekkoon liñ leen indiloon tey ah waaw Cucoo maa ngi woo baax xam nga famista famista borom ku borom borom salon bi faama waaw képp ku bëgg képp ku bëgg létt bu rafet rek xam nga demal si faama xam nga waaw euh, yaayu rose waaw ñu koy woo si combat bu baax a baax tamit moom tamit waaw képp ku bëgg dem waaw ñebe geeg waa nambe gi laay nambe ñoom alpha borom nambe yeeg xam nga man mooy loolu noonu yëpp bëgg naa ñëpp waaw ñoom maam buuboog bala xam nga papi gaa yëpp waaw bëgg naa ñëpp waaw ma fi yaa njaago bi tamit waaw brésil xam nga toldo ñu koy woo toldo mbaay toldo bu bu tarba mbaay Badou Tarba dama lay yóbbante si moom woo nañ ko si combat bi woo nañ ko si open presse bi waaw open presse bi gisuñu ko mais combat bi sas nañ ko xaaju bloc bëriwul na si jàpp xam nga may ñu xaaju bloc ñu jox ko ñu dem esat waaw mooy loolu combat bi combat am la waaw noonu la demee nag mooy loolu Soro Malick Soro Malick ama fayam Soro Malick ma ngi koy sant bu baax a baax a baax ak waa groupe Fësal ñoom Ngouda Ndiaye ak xam nga ñëpp ñoom dañuy sonn si mbër yi waaw mbër yi war na xel bu baax a baax a baax a baax waaw ñoom naanaa ñoom Touba xam nga booy yu yi ñoom Mouhamed ak gars yëpp di leen wax ñu ñaanal ma bu baax a baax a baax a baax waaw jaajëfati jërëjëf mbokk yi li moo nekkoon lu leen indiloon ki nga xam ne moom mooy Yamaha 313 war a bëri ki nga xam ni moom mooy Bébé Laurent journée petite production internet yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah